ñaxu état la am na solo euh, euh, awa fi dafa am lu mu wax lu am solo kan la kaaj yi non non kële hmm, euh, Modja Modja waaw mu ne mbër mën na la doole hmm. te du feeñ mhm. yow de loolu da ci insisté boobu ba tey mooy mu la bëgg a wax mooy dooleem moom doole waa ji hmm. la soxla pour utiliser ko pour ba pare dama dégg mu ne c'est le <laughs> moment ko teg mhm. moom mbër mën na la doole nga utiliser dooleem daan ko ah, loolu wax dëgg mën la dooleem nga utiliser dooleem daan ko waaw. Hmm. moo leen ëpp poids nga utiliser poids daan ko. Hmm. Hmm. zaal loolu moo ci aayoon. waaw moom zaal a gënoon aay ci loolu. loo am am doole sa doole la lay daan. zaal maam njambaan zaal ñabadi. Ah, euh, kii Mohamed Ali. Mohamed Ali. <laughs> léegi loolu li ma ciy jàngatee mooy li Balla wax ni Modou Dia dafa am benn ndengeeñ. kon parce que lu tax Modou la Modou Dia di répété loolu. mooy am na technique boo xam ne bu la ko defee ak koo mënti doon. doon sa doole du ñëw. sa doole dootu ñëw. la. Euh, bo Bouba ak soq bu ndaw amoo fi. waaw oh. combat amateur la. Mhm. combat la boo xamante ne nii combat boobu rek. Tapha Kandji moom combat xamu fu jukkee ay combat ba ñëw teg. <laughs> mais combat bi non combat boobu rek. combat boobu rek combat boobu rek doyoon na grand combat. Mhm. parce que boo fàttee boo boo fàttali ko benn champion bu ñuy wax tëngeej ñu koy wax Alpha 2. moom rek moo daan Bouba. muy champion boo xamante ne nii kenn dootu ko naataable ci làmb. Mhm. di mbër moo xamante ne nii mbërekat la. Euh, parce que soq de soq euh, soq soq bu ndaw soq bu ndaw li mu war a def si comme combat bi xeex nag da koy bokk ci li koy gën a yombal mm-hmm. combat bi soq bu ndaw waaw parce que ñëw rek bàyyi bu baa mu àgg sa mm-hmm. biir gaño rek mm-hmm. ñëw rek jàpp rek téye li muy gis si biir bëre bi moom mooy bari parce que bu baa day jékki-jékki boo xoolee combat yi mu gañee sax day jaar sa wet day dëkk dóor bët hmm. óor suuf pëttaxlu la hmm. jaar sa bëtoo waxuma sax combat moog Lat Dior hmm. parce que combat moog Lat Dior bi démb la mais ay combat yu bari yoo xam ne daf ko gañe ci biir bëre muy champion boo xamante ne nii comme euh, am na cër am na cër bu mu am ci biir làmb daan nag ay champion yu bari ci biir làmb programme baa ngoog ngeen di gis non ndaanaan ndaanaan la muy journée bu neex nag soq soq bu ndaw nag nekk champion boo xamante ne nii moom it ci ci bi mu daanoo ci talfa mhm. xaw na wàññi aliiram mhm. xaw na wàññi aliiram ci wàllu làmb mhm. mais mbër la moo xamante moom it bëreekat la mais ñëw rek bëreeg bu buubaa bëreeg moom te xeexuloo bàyyi ñëw rek jàppanteeg moom parce que cër yi ma cëru buubaa dafa gàtt cëru sox bu ndaw moo gën a moo gën a sut euh, cër cër cër buubaa kon ñëw rek bëreeg moom noonu rek te xeexoo wóorul pour man parce que soq na dama gis muy muy muy muy mbot mbotum colal dama gis yi dim des fois boo dalee ci wet gii di mu def la genre benn lonk boobu comme Ousa ni muy bëree sa biir tànk yéeg la. mais mhm. bàyyi buubaa sa wet wóorul. lu muy def ci combat bi dafa war a wóor. Mhm. muy combat bu neex a neex a neex boo xamante ne combat boobu nag man mooy sama combat. Mhm. doy na grand combat. muy combat bu neex li ci doy waar mooy Boy Pire. Boy Pire la Boy Pire. nekk champion boo xamante ne bul fàttali ci pôle bu daaru la jugee. parce que dafa daan kii champion bi nga xamante ne moom mooy. Mhm. Koña Koña Koña 2 la daan. Koña 2 la daan dafa daan Koña 2 ñëw pël mu daaru daan ko. Mhm. muy champion boo xamante ne moom it njool boo xam ne day jàpp tànk. Mhm. yor arrêt di góosam bu baax. Euh, ki nga xamante ne ni mooy Maama Lamine 2. moom petit loolu ko daan mu ñëw daan armée 2. muy waaw muy champion bu ma ne moom nag moom boo ko gisee mu taxaw rek. forme bi da lay gën a impressionné parce waaw xale la boo xamante ne jëmm ji da koy liggéey bu baax a baax mm-hmm. gëm boppam mm-hmm. yor hypercule nag boo xamante ne nii ñi ngi ko door moom la door caatu Pikine mm-hmm. caatu Pikine ñàkk combat bi moom la dóor Balla 3 bi nekk école de lutte Balla Gaye Balla 3 Balla 3 boobu ñàkk combat bi muy champion boo xamante ne nii moom it moom it dafa war a dagg léewtooy parce que booy pire dafa yor arrêt de gauche parce que booy pire am na benn champion bu nekk tëggee ñu koy wax Raskas. Raskas eh, eh, Raskas borom bootaay waaw waaw dafa daan Raskas. mu andi Raskas Raskas muy champion bu ma waxee woon booy bari. <laughs> waaw booy bari. booy bari waaw dafa jàpp ci ngembali comme Modou Awa Tine ni muy bëree. waaw fàq ko pëtëxlu ko wër ko ndomba. Mhm. daan ko jël bu rëy. mais Modou Awa nii day jàppee wala waaw mooy noonu Modou Awa day ngëpp. day jàpp nii fàq day jàpp day jàpp day waaw Modou ko doon <laughs> muy muy muy muy combat muy combat bu neex boo xamante ne Mama Lamine foog mu jéem a seere Boy Pire waaw waaw foog mu dugg ci foog mu dugg ci garde booy Pire mhm. parce que taxaw rek di bëre combat à distance mhm. Boy Pire dafa yor arrêt di gauche bu baax te booy pirim day bëri day bëri tànk mhm. day bëri tànk bu koy bu koy song mhm. na bu baax a baax a baax parce que gis naa gis naa mbëri song ko ci tànk mhm. daw di ko pëddoxlu mu dóor ko tànk champion la muy combat yu neex yoo xamante ne bu dimanche xam naa ne arène arène nationale ku fa mu taaj dana neex dana yëngu mu mel ni kon yaakaar naa ne incha allahu rabbi daal dimanche dana neex lool lool drapeau nag Omaro Gueye ah moom lañ tuddee ki nga xam ne nii moom mooy euh, double moteur ak ja